ci departement bu Pikine ay junni junni carte électeur ñu ngi xaar seeni borom lu toll ci fukk ak ñaari commission yi ñu samp ngir yombal lu ni mel jamono ji ay carte yu bari ñu ngi fa di xaar seeni borom bu ñu sukkandikoo ci nettali gi bàyyi ko ci préfet bi. waaw bu ñu xoolee globalement situation fii ci département de Pikine euh, dinañ nangu ne am na ay kart yoo xam ne nii seeni borom jël seeguñu leen ba léegi. te carte yooyu ñu ngi ci commission yi yi nga xam ne nii ñoom lañ taxawal pour ñu jël carte électeurs yi jox ko jébbal ko seeni borom ndaxte nag euh, élection moom dafa am ñu koy ñu koy ñu koy organiser avant pendant et après te loolu yëpp mooy mu ngi ci loxo administration électorale alors bu élection di jub si xam nañ ne dañuy ibbi liste électorale yi wax citoyen yi surtout ndaw yi nga xam ne ni euh, am nañu âge pour voter ñu ibbil leen liste yi pour ñu dem bindu ji ñi nga xam ne ni aussi bëgg nañu indi ay coppite ci seen euh, bërëbu voter ñu dem aussi fësal ko loolu yëpp day day tax ñu euh, defaraat ay carte électeur yu bees carte électeur yooyu nag buñ ko defaree sonn ci c'est parce que dañoo bëgg mu dem ñu jébbal ko seeni borom léegi loolu moo tax bu daaf ak euh, direction ministère de l'intérieur defaree carte électeur yi ba pare dañ koy jox ay commission fii ci Pikine demeeku nañ ne am nañ fi fukki commission ak ñaar yoo xam ne ni ñu ngi seen liggéey suba ak ngoon di ko di ko di ko doxal ni mu waree ci heure yi ñu leen ko waxee euh, boo demee commune bu ne am na benn commission boo xam ne moom lañ jox wàllu séddale carte carte électeur yi te ñu ngi siégé euh, ci ci commune mais euh, ba léegi gis nañ ne boo xoolee situation bi fii si département de Pikine 17 643 cartes ñoo fi nekk. fukki junni ak juróom-ñaar yu tegal juróom-benn téeméer ak ñeen fukk ak ñetti carte ñi ngi ci loxo yi commission yi ba léegi di xaar seeni borom léegi nag loolu li ko li ko li ko li muy indi mooy carte yu sakkan yoo xam ne nii dañuy xaar seen borom te euh, commission yi moomuñu carte yi. Moustapha Ndiaye di sàkku ci askan wi ñu dem jëli seen carte ci commission yi loole dina tax ñu mën a bokk ci ñuy voté élection présidentielle yi ñu jëm wante fexe ba kenn bañ leen a gàntal seen ak ak seen yelleef. vraiment ñi nga xam ne nii ñoom ñoo bëgg a yi ji ba taxoon ñu déplacé wu dem bindu ci liste électorale yi seeni carte génn na ñu ngi leen di ñaax encore une fois pour ñu dem fépp fu ñu dem ci Pikine au niveau des douze communes euh, commission yi ñu ngi fa di leen di xaar. nañu dem waaxu dem ñu jabal leen seen carte ci nu mu gën a ci nu mu gën yombee ci nu mu gën rafetee. donte nemmeeku nañ ne élection présidentielle bi li ci des bareetul département bu Pikine bëgg képp kuy électeur mën a voté kàddu préfet bi doon lu am solo ngir fàttali seen devoir civique jamono ji nag ñu bëgg a xam ana ñaata ci askan wi ñoo fas yéene dem jëli seeni i carte électeur ci waxtu wi gën.